جليلاي مسكني توبابات misrasmi abijaay xayri man abaat mbokk yi wérgu yaram balaa ngaa xam njëriñam nga tawat wala nga yor ko tawat commission sociale di bànqaas bu am maanaa boobu nekk ci biir kuréel gu mag googu di Touba ca kanam nga xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul léppam social la jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi dimbale doomu aadama rekk ko taxoon a jóg kon tey bu Touba ca kanam ñëwee am bànqaas bu mag boo xam ne dañ ko duppee commission sociale te yaakaaruñu lenn saabu dara taxawee seen kanam rek ñu jaayante daal dina mbokk yi kaa ngi nii bu mat a taxaw kenn ku ci nekk làmb sa poos ñu dajale ko dimbale ko sonn dimbale ko néew doole dimbale ko tawat mbokk yi soxna si ngeen di gis nii feebar bu metti moo ko dal yàgg ci moom lool ay mbokkam lu ne ñu def ko fu nañu dem fa lu ne ñu wax leen ne moom la bi ñu demee nag ba trouvé jàngoro ji muy feebaru bolloox di groite yàllay dox ba dossier am si ci Touba ca kanam ñu dénk ko commission bi di commission sociale ñu saytu ko ba fas yéene cee taxaw du ñu def dara mbokk yi lu dul ñu teewul te bàyyi xel ñii ñu jara dimbale ngi nii ana bàyyi defal yàlla yi ana góor yàlla yi ana ñi am yéene yi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nañu déglu soxna si doomam bu ñu noppee ñu déglu boroom këram ñu xool ban taxawaay la ci commission sociale bu Touba ca kanamam. fi nekkoon di sëqat eh, dañ doon dem ci garabu olof yi ñu ne dafa coroxaan ci la ko sonal dem bu mënatut a lekk bu baax ñu yóbbu ko ndaamaatu buñ ko yóbboo ndaamaatu ñoom ñu ne mënuñu koo faj ci lañ ko jàllale jànnatu bi demee ci lañ ne dafa amee guwaatam goitre bi nag dafa ànd ak cancer léegi ci lañ ko defal opération bi am naa moom at léegi waa janutu bi ñu ko defalee traitement yi ba si yàgg ñu xool ne ñoom mënatuñ ko faj ci lañ ko jàllale la Dantec mais dem nañ fa benn yoon rendez-vous bi ñu demee ñu bindal ko rajo radiothérapie fanweeri junni ak rajo kër ak analyse mais boobu ba tey defuñu ci dara ndax amuñu moyen bi vendredi bi passé bi mu ñu xawee jaaxal muy def lu mu lekk day jaaraat ci bakkan yi di ñëw ci lañ ko yóbbuwaat ñu ne dañ koy defalaat opération pour def raakool ci biir bi pour bu lekkee mu mën a jàll xam naa war naa am ay juróom-benn fukki at gis nga pot bi nga fekk fii bu lekkee day sotteekuwaat mu lekkee rekk tey jaaraat ci bakkan yi di sotti ku ma war a ñu koy taajal pot bi bëgg ku ñu ci jàppale bu baax a baax mu eggale faj mi. kii sama soxna sama dëpp doomu mooy ni teew booy wax danga nga waxal yàlla bu ma amoon dama gën te am dama gën a mu wér ci jàmm ak salaam ko mënee am te mën ko am lu ma gën a wér ci jàmm ak te na ko Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rafaal def ci jàmm ak salaam man laa bëgg ku ci dimbali rek ma jël waaw ku ci dimbali ma jël waaw ndimbal nag daay sàkku ndimbal moom daay sàkku waaw mu ngi nii xamaluma ko dara dara laa ko xamal lu xalaat taalibe xanaa ngor yaatu du mën a liggéey du ma ko def loo dana ko def du ma ko ne baal dana ko ba yàlla laay waxal nag Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rafaat ak sa bàmmeel bii ma taxaw waaw naan mu wér nag laa bëgg ku ma ci dimbali nag ma jël waaw ndimbal nag laay sàkku te mbokk yi xam ngeen soxna si nga xam ne dafa amee groite amee cancer lépp ci boloox gi mbokk yi dem na ba lekk mënatu ko mbokk yi lépp lu dugg ci biir day génnaat jaar ci bakkan yi mbokk yi xam ngeen ne lii métti na dégg nga soxna si nee na moo tax ñu tegal ko pot bi mbokk yi loolu nag li ciy pexe mooy faw ñu opéré ko dugalal ko raakol boo xam ne la muy lekk fa lay jaar buy génn fa lay génn mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax a baax saa la sunu borom may wér sant ko de te bàyyi xel na ki tawat di ko seeti te di ko toppatoo ndax kat ëllëg du añ du reer te lu mat a sédd la loolu nañ ko bàyyi xel bu baax bu kii xam nga ne boo demee ba boo lekkee bu duggee génn jaar ci say bakkan ñu tegal la pot bu di ci daanu xam nga ne lu gën a métti loolu amul waaye commission sociale dana jéem kéem kàttanam dana fexe ñu opéré ko ba dakkal loolu waaye dinañ topp feebar bi ba ci kàttanu sunu borom ñu tàqali ko moom ba soxna si mën a delluwaat ci ay mbokkam delluwaat ci ay njabootam kon commission sociale a ngi noonu lépp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir yal ñu yàlla defal jàmm.